sëñ Basirou ibnu sëñ Fallou di sant soxna maam Fatim Mbacke bu baax a baax moom mi di suñ sëñ Fallou si Grand bi di ko sant bu baax a baax di nuyu waa Grand Yoff yëpp <coughs> waaw. Mm-hmm. aja waaw question bi maanaam première question bi tey Fourrière ci Grand nekk xale boo xam ne espoir la di yaakaar mu mel léegi Grand bu ñu xoolee ci làmb ah fi mu nekk nii ni daan doxee at si ginnaaw. daa mel ni léegi affaire yi mu ngi xaw di waaj parce que défaite i bëri na yaa ngi dégg tey Fourrière lan moo koy xaar par rapport ak li nga xam ne nii ci la jëm parce que ci defet nga mujj sa digganteeg ki nga xam ne nii moom mooy xale boobu dëkk Soumbédioune Bébé Diène bari ki dem daan di faal daanu na muy loo xam ne daal Grand Yoff fi mu nekk nii ban taxawaay la war a am dimanche le euh, samedi le incha allahu rab waaw dañ ci am dañuy encouragé di naan décourage naan di faal décourage caatu caatu maalaw rek. leen encourage ne leen ñëwaat leen quoi lamb mu ngi seen ginaaw est comprendre mais Grand Yoff bi moom xam nga nit moom bëgg moom yàlla moo koy def si doomu aadama quoi bëgg yàlla moo koy def si doomu aadama te man waa Grand Yoff dañoo ànd man xam nga dama nekk seen doom yuróo fi yaroo fi mooy lu ma lay wax rek booy bi da lu mu ko yóbbante mooy Grand laa dëkk man dëkkuma ko ñu féeg quoi ko ñu féeg déedéet. tey boo ñëwee Grand Yoff fekk mbëri mbooloo mi génn yëpp góor jigéen ñëpp toog ànd ak yow di la soutenir lan lay def ci yow. waaw am kontaante bu bëggee rek ñun moom mooy maanaam li leen ñu li leen def ñoo yàgg topp depuis ba ñuy mbappat maanaam duñ ci am benn pression te incha allah bu bu jour ta duñ ci xam dara incha allah. Mhm. bi ngay jël combat bi est-ce que euh, xalaat nga sa xam nga prouesse yi mu def boo daanee combat bi est-ce que xam nga fu mu lay jóg. waaw budul dara sax grave moo soxla grave moo soxla budul dara grave moo soxla quoi. Mhm. xam nga Baye Mandione Senior xam nga ko. xam naa ko. xëy na moom moom umpale rek te allah waaw ci waxu dof laa xam man de waxu laa xam dëgg yàlla. waxu waaw waaw loolu rek. non non ma de man si danga ma laaj ci lu ko xam man la si waxu dof laa xam. waaw waaw. mais bu jour ba dina xam ne loolu lépp dëgg la. grand moom yónni yàqamti mu ko waaw. léegi kuy mooy lu ma la rek man ku ñëpp ku fi ñëpp jël laa ku fi ñëpp bàyyi laa jël man nag Bébé Diène ku ne gis na nu mu demee mais làmb moom waaw mais làmb la waaw dañuy ñaan rek jour yàlla may ñu ndam quoi. Mhm. nga am carrière treize combats ci sa carrière. Mhm. am ñetti défaites. waaw euh, responsabilité bi tey da nga euh, xam mooy mhm. nga responsabilité bi lay lu ma la rek. xam nga dama dama génne slogan bu bees mooy ragal du ñu topp bi quoi. waaw boobu jeunesse Grand Yoff la ay waxal quoi ku ragal rek na nga toog xaar ñun ñu yox la jëli ko te Grand Yoff ragal dëkku fi waaw. mais ñu gis la ngay waaj combat wàññi poids lan la. waaw <coughs> boo boo boo gisee boo gisee lu ma lu ma def lu ma def ci ay njuk xam na ne liggéey nañ ko bu baax a baax mais bu su bu jour incha allah dina leer quoi. mais dañoo gis adversaire da ëpp lool da ëpp lool lool lool lool est-ce que loolu boo du am lu muy def ci yow. waaw mooy lu mooy lu ma la wax rek. man moom 200 kilos sax mun naa bëreeg moom quoi. waaw ba cent kilos sax mun naa bëre ak moom waaw. ne tey la tey seeti naa ko mais nee na làmb ja bésub làmb lépp lu fa am loo xamante ne moo fay am rek moom moo koy def mooy xeex mooy bëre. mooy lu mu laa rek mobile moo ko gën a diis fuuf te damay contact ak moom. mais moo gën a diis foofu te damay ak moom. mooy lu ma laa rek gannaaw dafa ma yónni yaa xam ne ma taxawaalu waruma ko waa. leer. leer mobile di may ci contact. xam nga mobile da ngeen di contact yéen a bokk moom du la may lool ndax xam naa day xeex ak yow day bëreeg yow te itam poam comme ni la Ousin mii wax ah est-ce que du dis ci yow par rapport ak euh, ni nga toll nii. mooy mooy lu ma la rek man ñaanu ma ko dara te lu ma may ma jël incha allah bu jour ja jour yooyu moom na wax lu wax na ko dëggal rek incha allah. parce que man ay waxam dégg naa ci mu ne duma la boo bëree da lay daan ngeen xeex da lay duma. xam nga loolu ah, wax adversaire ndax ndax kii. ba day tàng de. ndax ñun signature bu nekk signature bu nekk déglu ma rek ñun signature bu nekk dégg nañ ko quoi ay maxaasa ay signature yu jooy yëpp dégg nañ waaw ñun ragaluñu loolu waa te ñun duñu ngaaxa waaw man gannaaw laa dëkk. fii laa juróo fii laa ci biir combat. lu yoonu maxaasa ci bii komba waaw waxin la rek maanaam dama lay wan ne signature bu nekk dégg nañ ko ñun loolu yóbbuñu fenn ah. waaw. te nee na euh, bi ñaari combat mu am diggante. Euh, Thiaroye ak Grand Yoff day ñëw daan la kii di baay ma ñëw ñëw daan Zarko. waaw loolu man loolu dawul sama yaram ñun dañuy dóor dóoraat barke Serigne Bamba Grand Yoff moo décidé te bu suusa dina comprendre waaw jarul wax ji di bari dama leen di yóbbante benn message la yéen presse bi quoi xam nga seen làmb la dama leen naan yow yow Boubacar yow Lamine yow Bour Guéweul neewal ma booy bi Grand Yoff laa dëkk dëkkuma ko ñu fekk te man ragal duma ma toog te Grand Yoff Grand ragal dëkk fi ah. waaw il faut ñu xam loolu. mais ay wax kat lañ tuddee bés bi est du ngeen fa ñëw di taxaw di benn bennal ndax ñun wax dong mooy suñu métier de. mooy lu ma la wax rek man man man damaa teggi ne quoi man amateur yi kii animateurs yi laay wax du ma wax ay ay kat quoi est-ce que comprendre nga. waaw di wax jour ja dina neex di yëngoo rek incha allah yéen ñëpp kii grand moo moo yónni yàqamti ma waa looy looy woote ci mobilisation ak non violence parce que dañ di gis si waaw mooy lu ma la wax rek ñun moom kenn xamee wu ñu xeex quoi Grand Yoff bi yëpp kenn xamee wu ñu xeex ñu dañuy ñëw fii ay noble ñoo fi dëkk gars yi ñëw du ñu mbuboo rek mais yàlla xam na ne fii ay garmee fi dëkk te dañoo kiliñ barke Serigne Bamba waaw. waaw bés boobu seen ay mag dañ na ci Maama Lamine moom mooy Garga euh, bokk na ci Franc ak Tyson 2 yéen en tant que xale ci côté mobilisation est-ce que côté bés boobu xalaat ngeen ñooñu. ëpp ëppale leen mbooloo ci bés boobu yow ak Baye Mandione surtout yow. a ah, yow ñëw nga gis nga gis nga bi gis nga signature bi nu mu demee waaw mooy man man liyantiwuma ay ay yenen yeneen camp yeneen yeneen adversaire sax man sama adversaire moomu ñor et puis c'est tout. Hmm. waaw. Hmm. fi mu nekk ah, ci ci ci ci côté doole boo ko xoolee xool sa bopp kan moo war a ëpp doole. bàyyi ma bàyyi ma di ma ay waxu doole bis buñ jàppante ñëpp dinañ xam ne dëgg lépp dëgg la waaw. bis bu ñu jàppante ñëpp. loolu faaw ñu wax ci ndax ñu ñëpp dañ ne. waaw doole ji waaw doole ji faaw ñu laaj ko. ndax ñëpp dañ ne moo la ëpp doole. mooy maanaam doole. doole du doole du dijji de dijji dëgër moo gën. waaw doole du dijji. man man sama combat bi paas ñu ma xam ñu ma xam ñu ma xam ñëpp ci poids lañ ma xamee. waaw kon tey su ma ñëwee nii da nga war a taaj lan la yow da nga war a toog nga naan analyser la. kay laaj nañ la ko maanaam bi ngay bëree bébé Diène poids bi dafa bëri woon mais tey dañoo gis poids boo xam ne gisuñu poids mooy lu ma la rek ñun amul luñ siy tontu dañuy bàyyi ba jour ñaan yàlla may a bëree jaar ci wet yi fàmb yi fu la neex jaar. Babacar waaw Baye Mandione nee na. waaw daa feebar. waaw loolu la jeex bii da nga feebar. loolu la loolu la yaakaar rek mais yàlla baax na la yaakaar rek mais yàlla baax waaw feebar nga ne la. barke Serigne Touba nga ne la. waaw di woo waa Grand di woo waa Grand di leen ne di man maay dip Grand Yoff laa dëkk man maay dip Grand Yoff laa dëkk dëkkuma ko ñu féeg eh dof ndey waxal ma booy bi mi ngi tàngal sama yaram waay eh maay fin boloor du ma fëlee ma foogee moo waral gars yi waaru waay waaw non non Grand Yoff am na bu ne maay dip du ma fëlee fu Grand Yoff laa dëkk dëkkuma ko ñu fék man maay fin boloor duñ ma fël du ma fëlee fu ma moo tax gars yi waaru waay dof nday ne waxal ma booy muy tàngal sama yaram booy. Fourrière Fourrière daa mel ni yow mën ngaa rab de. waaw garaaf garaaf dañoo carré fii bu ne mu ngi fi barke Serigne Bamba ñu lépp lépp mu ngi fi barke mën ngaa sikkar nag dégg ñun lamb séeréer mooy ñuy suñu ginnaaw ñun manqué wuñ dara lépp mu ngi artiste tout barke Serigne Bamba te bu bu incha allah bu bu jour boobaa di ngeen xam ne lépp ngi fi. waaw incha allah. waaw bëgg ci yow waaw. waaw mooy nettali ba.